billah bisimilah inna wali yàlla dama bëggoon euh, Sénégal yi euh, ñu étudier waat bu baax yi ak soxnaam waaw mm, surtout Macky fa mu tàmbalee ba fii mu egg si maanaam ku ci nekk da nga am sa njàmbaaru bopp goo xam ne loolu lu leer naññi la il faut ñu reconnaître loolu waaw waaw bu nekk nañu ko jox dimension waaw waaye essentiel bu nekk nañ ko jox dimension bu ñu defee loolu rek duñ juum ci ñoom daal vraiment waaw bu ñu ko doon détaillé si Macky surtout Macky bu ñu doon détaillé ak njàmbaaram day day yéeme lu yéeme lay doon waaw donc man nag li mu nekk ci man rek laay wax waxuma pour lu neex kenn wala lu naqari kenn couple lañ boo xam ni vraiment ay jàmbaar lañu loolu man Ahmadou Mbacké maa ko wax dafa am loo xam ne moom dëgg daal bu jotee da nga koy wax détail détail la bu dee problème bu dee Macky du caagi na ci ci politique rek la doone jàmbaar déedéet waaw mbir yi dañ fa jar settantal bu ñu ko settantalee rek gis li moom fa mu tàmbalee ba fi mu si ba ni mekkee ci bopp réew mi ak li mu jot a def ak li mu def ci di waaw li mu def ci maanaam euh, kër euh, diine yi ak li nga xam ne en tout cas jàm njàmbaar gi njàmbaar gi daal man moom laa gis waaw soxnaa mi itam noonu la même chose loolu moom bu ñu ko reconnaître ba noppi nag leneen lu ñuy wax ñu wax ko waaye njàmbaar gi moom <laughs> dëgg la njàmbaar gi moom kenn mënu koo wedd seenu njàmbaar